nit ñoo xam ne ginnaaw Serigne Saliou la leen defar. am na ñoo xam ne leerug sëriñ Saliou moo leen fekk fañ ne dugg leen defar leen. am na ñoo xam ne notaale mu sell yii. te boo ko gisee mu jox la xar kanamu Cheikhul Khadim ci la leen defaree. am na ñoo xam ne bëgg gi ñoom ci sëriñ Saliou te gisuñu ko ci la leen yërmandey Serigne Saliou walloo. ba mu defar leen barab yi may dem yépp ñu fay defar Serigne Saliou wóor na ma ni ne gone yii di sant Serigne Saliou ñu ko ci gis bëriwut mhm. kon fa mu tegoon Serigne Saliou ci bëgg ci Serigne Touba ci bëgg yàlla foofee la ko yàlla fayee mhm. yàlla tàggatal ko ndaw ñi it ñu mhm. am cofeel gu tar ci Serigne Saliou Serigne Saliou dàq defar moom bu lay defar dalay ñeewantu ba ba fàtte looloo sa ndey ak sa baay bëgg la dawkat yi mas nañoo bari lool mën a bàyyi Moussa Niang mën a ko mbàkkee indil ma dawkat yi. ñan ñooy dawkat yi. fàqmaan yi rek mooy ñi nga xam ne nangu ñoo toog ci daara ji. Hmm, dëgg la. ñu gurgur yi ñëpp dugal ci kees gi. cey mu ne ko Moussa mu ne ko mbàkkee mu ne ko mu ne ko ña nga nee toog mu ne ko nañ añu Samba Boy. ko ne Moussa mu ko mbàkkee mbaa xam nga añu Samba Boy mu ne ko xam naa ko koy mu ne ko Moussa luy am samba booy mu ne ko mooy ceebub keccax sëñ bi ne ko hu sallahu ne na doon ceebu ganaar kenn du sëriñ sëriñ allah akbar daa di ko ni Moussa mu ne ko Mbàkke na doon ceebub ganaar te lu mu war a mel na ko mel laa ilaha illallah daa di ko ni Moussa mu ne ko Mbàkke ñii li ma leen di def loo ñu ko dañ koo xamut waaye ku leen naxtaan bañ xam ko dañ ciy jariñu jariña ci laa ilaha illallah daa ko ni Moussa mu ne ko mbàkki ki jur jox la bañulu la dara waaye amaana bon géeg baax gi ci sama jëmm ji la aju may ñaan may ñaan Serigne Touba ku tàbbi samay loxo Serigne Touba defaral ma la laa ilaha illallah daa di ko ni Moussa mu ne ko mbàkki nit ku nekk fukki jukko la ko suñ borom mooñaale keroog laa dégg sëñ Sali wax ko fukki jukko ndekete sëñ Sali wax xam lu ne ci àddina fukki jukko ndekete kuy dox ci àddina say tànk féete suuf sa bopp féete kaw Serigne Saliou nee na yàlla jëmm yooma adama jumbool def na ci fukki jukko la ilaha illallah daal ko ni Moussa mu ne ko Mbàkke mu ne ko nit koo bëgg àndal da ngay seppi benn jikko ci moom ànd caag moom allah des bul ko gëstu cey daal di ko ni Moussa mu ne ko mbakki boo àndutu ñëpp da nga ñu bari di ko ni Moussa mu ko Mbàkke jafe-jafe goo gis ci ay nit mooy dangay ngay ànd ak nit ci benn jikko ba mu yàgg ngay gëstuwaat ci moom ci beneen jikko te loolee ko koy def doo ànd ak kenn dëgg la déggal xam-xamu Serigne Saliou laay ndeysaan si lool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 loxo ca kaw jërëjëf Seex Saaliw Mbàkke jërëjëf Seex Saaliw Mbàkke yaa doonu sa baay Seex Bamba borom góot ak mbóore jërëjëf Seex Saaliw Mbàkke jërëjëf Seex Saaliw baay Saaliw yaa doonu sa baay Seex Bamba borom góot ak mbóore baay Saaliw jërëjëf Seex Saaliw Mbàkke jërëjëf Seex Saaliw Mbàkke nu sàmbaay na borom go tagu jërëjëf Cheikh Saliou Mbacké jërëjëf Cheikh Saliou Béthio yaa doon sa baay Cheikh Bamba lay lay la la jërëjëf Cheikh Saliou Mbacké jërëjëf Cheikh Saliou Mbacké tool ba ca xel kom yaa ko waral borom góotug mbuure jërëjëf Cheikh Saliou Mbacké jërëjëf Cheikh Saliou Mbacké yaa doon sa baay Bamba baayu soxna ba ca xel kom yaa ko waral borom góota ga mbuure jërëjëf Seex Saaliw yaa doon sa baay Seex Bamba borom góota ga mbuure Seex Saaliw jaajëfa Seex Saalim jaajëfa Seex Saalim yaa dunu sa baay Bamba borom góota gu mbuure jaajëfa Seex Saalim amuloo morom Seex Saalim yaa dunu sa baay Bamba borom góota gu mbuure Seex Saalim Mbàkke tool ba ca xel kom yaa ko waral borom góota gu mbuure ko joxel koom yaa ko waral borom gootoog mburu sëñ seex tol ba joxel koom yaa ko waral borom gootoog mburu tol ba joxel koom yaa ko waral borom seex Moustapha Saliou tor ba joxel koom yaa ko waral borom gootoog mburu tol ba joxel koom yaa ko waral borom ana soppay seex Saliou tol ba joxel koom yaa ko waral borom gootoog danu mbuure jërëjëf jërëjëf alaaji Cheikh Diop Mbaye yàlla noonu la yàlla fayal la ma ñaanul sëñ Tuubaa defal na ma ko bi yàlla dogalee ñu doon say soppe booba kenn nu booba wayuñu booba feeñuñu bi ñu demee ba feeñ yàlla dogal ñu fësal sunu cofeel ak sunu dénkaane ci sa jëmm yàlla bim mu nu boolee ak tey yaakaar naa ne tey la mësu jaar ci sa tur sama nijaay rek ngay dégg sama papa rek ngay dégg ndax cofeel gi am ci yow te yàlla tax